jànge ba ñëw dikk na yaay mu ne ay da de silibam bi dafa taq deret léegi ma laajee sama doom mu ne ma yaay suñ xaadim dama daan tëral ci si jaade gi gi nekk si néeg bi dima ko def su paree morso ngegenaay la koy fompe nee na gone yi da sëñ bi di ko daan woo gone yi toog di ko xaar diir mosu ko génn. maanaam sëriñ bi nag man man cër bi moo ko joxoon daal kilifa laa ko cëru cëru sëriñ laa ko joxoon. ndax foogiwuñu ko woon lool ndax fi mu bokk. ak dara ji mu am fii kenn foogewu ko woon ne dina jëf-jëf ju bon jooju. waaye di def ci moom ngay dem def loo ko bari na fi xale yoo xam ne sax moo leen tudd. ndax xale bu jigéen saabu bu ñàkkee ndaw rek am na lu ko naqare. man fi mu ne muñ toogee nii sax daanaka du ma mën a tee bokk ak ñoom sax di lekk di jàkkaarloo ak ñoom duma ma ko mën daanaka biñ may woo ma leen suur naa sa lépp rek dama leen di ñëwant. ah sëñ xaar moom gisatuñ ko ñun moom jour boobu noonu ñu lool ci guddi jour boobu la dem yoonam takk lu mu fi amoon dem ba nii ko fenn moom. déggaatuñ ko fenn tamit. Hmm. asalaamaaleykum mbokki internet yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen euh, tey nag ñu ngi fi Touba plus précisément ci Touba Sam Kër Ngol. Kër Ngol waaw euh, li ñu fi indi nag defe naa lu xaw a doy waar la muy benn benn sëriñ buy wuyoo ci sëriñ Xaadim Mbàkke daal di fi sàkku euh, lu toll ci vingt sept xale maanaam ñaar fukki xale ak juróom-ñaar yuñ doon jàngal mu daal di leen di sàkku euh, loolu nag euh, ci ay ci ay information nee nañ yàgg na koo def waaye xale yi daanaka ñemewuñ ko woon wax biñ demee ba ci biir nag lañ seetlu ci ñenn ci xale yi def révélation ne sëriñ bi daf leen doon sàkku kii ñu toogal nag di délégué quartier ci ci ci ci gox bi ñu war a waxtaan ak moom am na ci doom bu ñu sàkku moom mi ngi nii lépp luy lépp lu ci am muy information lépp lu ci am muy jéego boo xam ne dox nañ ko diggante ba loolu amee ba léegi dinañ ci waxtaan ak moom euh, sëriñ bi dañ lay dañ lay bàyyi nga nuyoo ak ñu lay suivre. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakatu maa ngi nuyu maa ngi nuyu Sénégal yëpp nuyu àdduna yëpp ci seen tur ak sant. gannaaw bu ñu jullee bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sant Serigne Touba xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñii dañu fee ñëw di leerlu li ñuy leerlu it dañ ci wax suñu suñu suñu lu ñu xam nga xam ne wóor nañ ne lii lañ ci xam duñu ci weesu liñ ci xam ndax fii lañ juddoo ba toll ni ñu toll kon lépp loo xam ne lii luy luy luy taasal fi maanaam quartier bi wala luy taasal loo xam ne fii ñu dëkk wax dëgg yàlla loolu bu amee du ñu neex moo tax buñ ma laajee li ñu ma laaj dinaa ci wax li ma ci xam waaw waxuma yit ngir délégué délégué de quartier dama wax ngir dama ci am doom. Mm-hmm. nit yi ñëpp amee doom. Mm-hmm. te doom sax ci xol neex ci xol. kon nag lii mooy li nga xam ne moo ma naqari ndax doom laa ci am comme ñi ñëpp amee doom. ñu def ko comme ñu ñu def ñëpp kon naqaru ñëpp am moom laa am moo tax may wax nii waaw. dëgg la euh, sëriñ bi naka naka naka nga ko nga yëgee mbir mi naka naka nga ko yëgee mbir mi daal ni nga xam ne noonu laa ko yëgee parce que euh, man mag laa kilifa la mm-hmm. am na loo xam ne mënuma dugg ci kër yi di gëstu. Mm-hmm. waaye li nga xam ne fi ma fi ma jëlee ci sama doom daal mooy am na benn suur sëriñ bi da ko fàttee pini ko ndax dong bu ne ci ci jàng jàng bu ne miin nga ñu téye la fa wala ñu jéng la bu dee da ngay jàng di wàcc miin nga boom mokkalul ñu ñu ñu ñu téye la fa ba ab diir ñu téye ko fa bañ julli timis ba pare ñu sog koo bàyyi mu ñëw bi mu ñëwee ñun dañu ko singili xas ko ne ko lu tax nga nekk ba naga ni mu ne sëñ bi am pinu ñu ne ko de amuloo jom boo amul jom da ngay jàng ni say moroom léegi nag bi ñu toogee am deux jours siburu ñu defee ne pali la ñu yóbbu ko ci école ci euh, euh, dispensaire bi nga xam ne Touba ca kanam ñoo ñu ko defal ñu dem sage-femme ñu xool ko gars yi xool ko soigné ko maanaam defal ko li nga xam ne mooy feebaru pali mooy mooy mooy mooy saafara pali mu féex bi mu nag foofe dematul jàngee tut gannaaw bi nag bi affaire bi tojee ñu ne ndax jàngee tudoon waaye da daan dem di bale ji alxemes heure bu ne. Mhm. nee nañu it bu bale jaawoon ci li nga xam ne moom la xale yi wax parce que diw fa te di may wax su ma su ma trahi bàmmeel li nga xam ne moo sama doom loolu mu wax. nee na gone yi sëñ bi di ko daan woo gone yi toog di ko xaar diir mosoo ko génn loolu yëpp ñu njëkkuñu ci dara kon loolu bi affaire bi amee nag ñu ne kat comme xale yëpp la. Euh, ñu ne gone yi na léegi kon même antam yi bu mosaa dem sax dañ ko fay xaar moom sëñ bi da koy woo ñu toog di ko xaar ci loolu lañ ci sukkandiku ba yóbbu ko biñ ko def bi ñu demee yóbbu dem gendarmerie gendarmerie yëpp nu xadimul xadim muy hôpital bu mag bële fii fi Macky Sall def bu yàggul ba ñu demee ñu xool ñu jox ñu rendez-vous nañu bu subaa na ngeen ñëw ba set ñu dellu sage-femme bi xool ko ne kii àgg nañ ci kaw dal di bind li ñuy bind médical beeg yëpp ak papier bi ñu jëlee woon gendarmerie dellowaat ko kaste ko ci lettre bi ni ñu yor leen ko gendarmerie bu leen ko laal léegi ñu andi ko gendarmerie gendarmerie téye ko boobu ak léegi loolu daal foofu laa yem man ak ñoom boobu ak léegi it wax dëgg yàlla euh, gisuñ ci avancement waaw gisuñ ci avancement boobu ak léegi papier bi ñu defaree suñuy papier ba pare wax dëgg yàlla kenn newuñu nii kenn newuñu naa. te nag amuñu doole waaye nag ñu yaakaarul Serigne Touba kon ci suñu néew doole it mën nañ cee sukkandiku waaye nag bu ñu gisee ku ñu laaj nag wax dëgg yàlla donte dañuy teqale suñu bopp ak suñu baat nag danañ wax dëgg gi. Mhm. waaw loolu moom suñu borom dogal na du ñu waxantu du ñu wax lu ñu xamut lii de moom mooy li nga xam ne ci la ñu toll ci laa toll ci laa toll ak sama doom ci laa toll ci lii. dëgg la sëriñ bi wax nga ne sa doom daf ci bokk. ndax ginnaaw ba rumeur yi amee. ba nga ja ba nga waxtaaneek sa doom ndax laaj nga ko lan la sëriñ doon def. laaj naa ko comme ni d'habitude ñi ne ñi waxee mu ne wax dëgg yàlla daan na ko ko def ñu ne kon nañ dem hôpital biñ demee hôpital hôpital ne carrément kii dem nañ ci kaw. waaw maanaam xale bi àndut ak ndawam fi ñu toll di wax. déedéet moom la médecin bi wax te moom médical ba moo ca ne moo ne gendarmerie. xale bi ci ñaat ci ñaata at la war a toll. treize ans la am fukki at sa doom 13 ans la am. waaw ah, ndax ndax sëriñ bi daanu leen seetlu si moom lenn lu mel ne lu wéree di wala wala yooyu noonu maam sëriñ xaadim moom ci boppam moom mi doon. loolu moom wax dëgg man remarqué wu ko ndax ku ko joxoon cër la mosuma koo gis mukk di siyaare wu ma ko parce que wax dëgg yàlla xanaa fii rek la defee naka su noonu waaye foo ko mos a gis nga xam ne sëriñ Tuuba la bokk waaye nag lii nii ñëw kaase lam defoon lépp ci lu baax bett ñu yoon nit ki nag du la bett man la. waaye laal asib mosuma ko yéen nuyoo mukk loxoy neen ndax maa ngi li nga xam ne loolu la daan wane alxuraanul karim ji di jàngal xale yi loolu la jàppe woon ci moom waaye nag ah, nit ki moom allah wax na yàlla moo xam ne ca biir. léegi bi loolu xewee <coughs> euh, maanaam moom euh, euh, ci naka ngeen seetlu ni moom yëg na mbir mi ba daw génn dëkk bi. waaw loolu it wax nañu bi mu ko yëgee bi mu am na dégg naa ko mu woo ne ko man damay dem ndax dañ maa tuumaal xëjatuma fi mu ne ko comme ni laa tuumaal toogal mu ne déedéet damay faj maa wér damay faju ji mu ne ko médecin yi foo nekk médecin boo mu fekk ci la kilifa nga mu ne ko daal dema ah, xëjuma fi daal di dem loolu daal ci laa ci la ñu wax ne loolu loolu noonu ka ka mu mujj a loolu la moom dem boobu ak kon jëf ji nga xam ne ni moom def na ko nanguwu ko maam dafa jàpp ne dañ koo tuumaal. waa xam nga comme dem na comme daw na dem gisuma ko mënu ma xam ndax parce que comme daw na dem bu fekkoon ne toog na kon ñu mën a xam mais comme daw na dem ki daw dem moom la xam ne moom moom moom moom la ñu bàyyi gannaaw moom la ñu wax gannaaw comme amul ko ko miimal amul ko ko ko ko weddil tey dem nañu xool nañ ñaar fukki xale ak juróom-ñaar kenn ku ne la war a ne ci yow newul ci yow kon foofu nag it ñu ñëpp mën nañu mën a jàpp ne loolu la waaw. ndax moom askanam fii la dëkk. waaw askanam wax dëgg yàlla man fii laa ko xamee xam naa daal céetub Serigne Touba amaa na mbokk ak Serigne Touba nag na mbokk ci biir ci biir Mbàkke nag man moom wax dëgg yàlla soriwuma ci te bëgguma tooñ waaye daal Mbàkke la sant loolu laa xam ci moom fii laa ko xamee itamit nag. wax dëgg yàlla xam naa ne ku sant Mbàkke ku ne moom boo nekkal bii too am nga kër Touba ndax Serigne Touba la yaakaar ñun ñëpp waaye fi mu ne exactement xaw ma fu ñu dëkk xaw ma fu ñu placé. waaw gannaaw bi may lañ ko fi soxna. waaye defe naa bi muy ñëw defe naa amul soxna gannaaw bi nag may nañ ko soxna. fii si dëkk bi lañ ko mayee soxna. waaw may nañ ko soxna fii soriwul waaw. si de man wax dëgg yàlla. comme mënu ma koo garder xam ma fu mu nekk te du ma am di loi war a xool fu mu ne du ma am di loi war a war ko souligner xam naa daal nekkatul fii mu nekkoon moom waaw. tey ci wàllu yoon. Mm-hmm. Euh, fan fan ngeen ci toll ci wàllu yoon. ci wàllu yoon comme li ma la wax nii rek. def nañu suñu formalité yëpp yi ñu santoon yóbbu nañ gendarmerie loolu foofu rek lañ mën a yem. boobu ba léegi amul benn avancement boo xam ne. man man saa jëm bopp de man mii de woowuñu ma ne sa doom nangam xaw ma nag keneen. mbir mi tamit doon na lu yàgg parce que maa ngi feree ci wéewu bay ñu ni ci ci weeru ci weeyu koor gi la boobu ba tey daanaka semaine bii la ci Sénégalais di doo ko jot lan moo lan moo lan moo yéexaloon mbir mi. li ko yéexaloon comme li ma la wax rek parce que dem nañ fi ñu war a dem dem nañ gendarmerie déposé nañ wax nañ jóg nañ suñu médica suñu médical ak yëpp toog ñu ne dem leen toog xaar ñu ñu toog xaar leen déglu kilifa nag bu la nee toogal xaar ma wax dëgg yàlla ci ci am de loi doo mën nag lu may toog gannaaw bi nag comme mu mel ni yéen média yi ndax it loolu moom moom moo nekk senegal tey parce que nag kenn kenn nelawatul boo nelawee ñu yee la parce que yéen a ngi nii joge Ndakaar bu ñëw fii mm-hmm. kon bu ñu nelaw ni ngeen yee ñu ndax ndax ndax jéem ngeen woo Serigne Khadim jéem ndax ndax fu mu toll nii mën ngeen ko jot ndax yéen a ngi koy woo di ko jot. waa xam nga ñun comme amuñu man aw ma numéro am aw ma droit woo ko du ma am de loi xam naa li ma def neexuma dem naa ci am de loi wax naa leen ko toog naa déglu toog naa di xaar di déglu kon amu droit même bu fekkoon am naa numéro am sax amu droit moo ko woowee Moussa Gaw maa koy tooñ ku ne xam na ni Touba tamit dëkk la boo xamante ni euh, bokkul ak keneen dëkk yi Touba dañoo dañoo dañoo tënku ci ndigal Touba it am kilifa ñu ngi nuyu Serigne Mountakha di ko ñaaral yàlla sunu borom yàggal ko fi est-ce que bi li amee donte ab quartier la dal dem ngeen waxtaan ak kilifa gi. waaw dem nañu waxtaan ci ay kilifa du ma tudd seeni tur nag ndax loolu wax dëgg yàlla suma taalibe ak suma suma gëm sëriñ Touba mayu ma ma naan dem naa ci diw dem nañ ci diw waaye dem nañ ci ay kilifa ñu ne toog leen déglu ñu booba ñu ngi dégloo dégguñu dara. léegi lan ngeen jàpp ni mbir mi moo ko xaw a yéexal ba tey. liñ ko jàpp ne moo ko xaw a yéexal xanaa new doole parce que nit ki boo demee fi nga war a dem toog ñu la demal toog nga toog leneen looy def doo xaru doo rey sa bopp dangay toog dégloo rek loolu la. diggante booba léegi xale yi seen état de santé ak seen maam ndax ndax amuñ lenn lu ñuy nekk di wanewaat. xam nga loolu loolu psychologue yi ñoo koy xam. Mhm. ndax xale moom saa yoo ko déversé la mu na mu waroon a do na mu waroon a nekke dootu na nekke mhm. loolu moom ku ne xam nag même bu dee mag sax dina dina feeñ ci yaramam feeñ ci toogaayam pendant une semaine wala quinze jours. raw naa xele boo xam ne bii ñu ay 12 ans ñu ay 13 ans force mu am lu mu leen marqué mais comme du ñu psychologue am na loo xam ne mënuñoo xam ndax nii la ne rek kii mu la comportement bi amoon ak ak bi mu am léegi ça fait a eh, lañ a yem. ok comme ni ñu ko waxee rek ba eh, yaay booy dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay seetaan. Ah, waaw maanaam maa leen di fay di leen masawu coono ak Dakar ngeen jóge ñëw ba fii ci tàngoor wi kon ñu ngi leen di masawu coono bu baax a baax a baax. mu ni mbir mi da nga ci am doom. waaw am naa si doom waa man ay dongom laa tudd waaw. Anta Diouf. fukki at la am waaw. man damaa xëy woon ba wàcc. dikk fekk koñ bi fees dell. man leen waa yéen lu xew fii ñu ne ah suñu xaarim de moo tëddee xale yi man foofu mu àndatuma fekk sama sago. ci laa daal di toog di jooy samay jooy ndax mu naqari ma torop waaw mu metti ma torop te li ñu si gën a metti nag lu fuñ wax fuñ dem ñu ne du mujj fenn fuñ dem rek ñu ne du mujj fenn man moom looloo ma si gën a jaaxal gën ma see metti nag waaw. ndax bi yaa ngi ci doon waxtaan ak sa doom ba fexe xam la noo ko dal. waaw waxtaan naa ci sama doom de bi mbir mi amee papaam xupp ko ne ko waxal dugal ko ca néeg ba ne ko di nga wax ni mu la doon def baa ma dóor la fii ba rey la mu door a wax door ya papaam mi door ne ma kaay wax ak moom ma dóor a ñëw di ko naxtaan ndànk mu ne ma yaay suñ xaarim de man fekk magam da doon bëgg a sëyi moom mu bàyyi waaye ne saa bu fa demee da ko fay téye ba timis papaam ne ant mi lu muy def ca daar ja ba nëgë ni moom bàyyi na jàng lu mu fay def bu demee suñ xaarim da ko fay téye ba timis nekk da bu ko fa téye da koy dugal sa néeg ba dóor na ko fii ba ab jaaroom dañ ba nopp bi xaw a xëtt ba papa mi bëgg ko woon yóbbu hôpital door a jël batterin tay si bàyyi noonu. ndax foogewuñu ko woon lool ndax fi mu bokk ak dara ji mu am fii kenn foogewu ko woon ne dina jëf-jëf ju bon jooju. léegi ma laajee sama doom mu ne ma yaay suñ xaadim dama daan tëral ci si jadd gi gi nekk si néeg bi dima ko def su paree morso ngegenaay la koy fompe su ma jógee mu ne ma yaa ngi nii soo ko waxee. fu ngeen dem boo ngeen ko waxee fii ma toog laa ko dik te boo waxee naa la dóor ba ba rey la bu defee bu dikkee ci kër gi du ko ñemee wax noonu la daan def moom. ci yan période ngeen ràññee ni seen doom daan na guddee wàcc wala bi muy toog daan guddee wàcc ay timis yàgg na. yàgg na de yàgg na de ba leen dalee jàngal moom ba nëgg ni sii moom amul kenn ci koo xam ne kii di wàcc di nga wàcc tàkkusaan ay timis jëm ay geewe moom moom yaay mujj sax dem toog ba si yàgg nga ne naa ñëw xooli saa doom ba xam soo demee mu ne dama koo téewoon muy jàng ndax jàmbaar la moo tax ma téew ko fi nii la daan defak ak ñoom waaw. naka ngeen doon dundee ak ak Serigne Khadim fii nii ndax daan la wane lenn luy lenn luy firndeel loolu. wala déedéet daawu ko wane de fii taalu bi la fi wane ak yar ak teggin moom la fi wan de ñun tam taalu bi googu ñu jébbal ko ko bu baax a baax a baax ndax fi ne fi la bokk ci mbiru sëñ Touba si la bokk. saa boo xasee ba ne Mbàkke laa sant rek lépp dañ la koy jébbal mosuñu ko wan mosuñu ko wan wax dëgg yàlla yar ak teggin ak fulla ak dignité moom la ñu wan moom la ñu wanoon fii de waane nag doonatu ko moom moom moom doonatu ko ndax mbaam la moom suñ xaadi moom mbaam la waaw. xam na Touba tamit am na ay kilifa te li ngay wax dañ leen a tënk ci ay kilifa est ce que bi loolu amee dem ngeen ci kilifa yi waxtaan ak ñoom. dem nañ ci kilifa yi ndax sëñ Muntaxa mi nga xam ne fii mooy ndawal sëñ sëñ sëñ bas mi nga xam ne mooy ndawal sëñ Muntaxa dem nañ ba ci moom fii lañ dog dem fa ba nekk fa ba ay trois heures ci guddi ñu door faa jóge ñu ne suñ boroom kër yii bañ waxee dana dem leen ba suba bañ demaatee ba suba ñoom ñi ñun demuñu sax góor ñi ñoo ànd ak ñoo demaat bañ demee mu am kum leen booleel ñu dem gendarmerie waaw bañ demee foofa nag boobaat léegi waxatuñ ci leen dégguñ ci leen li ñu metti nag baatab du mujj fenn bi moo ñu metti fu ñu mën a am dimbal ku nekk fuñ mën a foo ku ñu mën a dimbale ku nekk rek nga dimbale ñu te yàlla suñ borom tax ndax nee nañ fu ngeen mën di dem du ngeen du ngeen am ndam lii la ñuy wax du mujj fenn ñu nag moom loolu moo ñu metti waaw ban ban nouvelle ngeen am ci sëñ Xaadim maam ndax mi ngi ci dëkk bi wala wala nekku fi ndax. wala ngeen xamu leen ci benn nouvelle. sëñ Xaadim moom fi mu nekk nii xamuñu fu mu nekk xamuñu ko wax dëgg yàlla ko wax sa diggante ak yàlla xamuñu fu mu nekk dégguñu ko fenn itam. seen doom yi naka la ñuy dundee ginnaaw ba lii amee ba léegi. ah xanaa ñu am lu leen naqari torop nag xale bu jigéen saa bu ñàkkee ndaw rek am na lu ko naqari te fu ñu toll itam nag ñu leen di woo di leen dëfal ndax lii am am na ba pare soo yóbboo seeni fiti day dem ba indi la problème moo tax fu ñu toll ñu ngi leen di woo di leen dëfal xam ne nag lii moom metti nañu ba ca kanam yàlla te li ci suñ xol bii moom duñ ko mas a baal suñ xaadim duñ ko ko mas a baal waaw liñ bëgg rek daal ñu wër ko ba gis ko ba jàppal ñu ko xam ne baat bi du mujj fenn ñun daal loolu ñu bëgg. boo amee message booy lancé a tan que yaay bi nga xamante ne tamit li dal na ko. jërë ngeen jëf ñu ngi leen di masawu coono bu baax a baax a baax yàlla miy fay yàlla leen fay te seen jéego yi ngeen dox ba ñëw Touba gi yàlla bu leen yàlla suñu borom rusloo. man daal lu ma gën a metti lu ma gën a metti mooy loolu du mujj fenn ndax yàgg nañ koo def ñoom ñi fi ñëwoon di ñaan intervention daal nga xam ne ñooy bokki ki ko def. ah dañ ne du mujj fenn man nag mbir moomu daal moo ma gën a métti moom moo ma gën a métti su fekkoon ne ñoom ah dikkoon nañ ànd ak kilifa yi kilifa dikk di nu masawu waaye ñun gisuñu kenn kilifa gu fi ñëw di nu masawu ci affaire yooyu gisuñu ci kenn nun neen la sa nañ fépp fi ñu war a jaar it nag jaar nañ jaar nañ ci kilifa yi waxtaan nañ ci ak ñoom xaw nañ ñoo dëneerlu sunu ay taali bi dong lan du masa weesu ay taali bi gëmuñu lu dul sëriñ Tuubaa it nag su fekkoon ne it mbir mi su fekkoon na ci saa bopp bii la dal a ah, kon kon ba naga ni kenn waxatu ko kenn waxatu ko waaye nag bu ñu xool Covid bi nañ xool ki ko def ak li tax mu def ko sax fii Touba ñoom luñ bañ ci tuubaa la bëgguñu kuy foy kuy fo ci Touba. wax nañ ko ñun ñëpp nu di ko dégg noo ngi koy moytu di ko du nun taalibe yi di noo ngi koy moytu suñ kemtulaay kattan bëgguñu fee def lenn loo xaye ne neexul yonent bi neexul yàlla neexul yonent bi neexul Serigne Touba. ndax Serigne Touba ba muy sañ ci dëkk bii wax dëgg yàlla fo fo hut faluwut kon nag ñi fi nekk muy man muy saa moroom ak koo xaye ni ñi ngi toog ci sa kanamit it waroo koo ji ma sa nun amuñu lu dul ñoom kon nag nañ ñu jë dimbale nañu ci lii ba teg ci kaw yoon rek nañ jàppale bu baax a baax sa xam ne ay xale lañu sa xale yi ñu yàq mën nañoo dem ba war na yor dara ci réew mi sa fi ñu toll si trop tard parce que xale yaa ngi nii xamuñu nu ñuy këfin dañoo wow koomu sa amul dërëm buñ leen faje benn ci man mii di wax ak yow ab dépense képp ba bañ bañ bañ umagut koor ba fi mu toll xëyu liggéey xëyu ma def dara lu may samedi ak dimanche nga xam ne nii samedi ak dimanche du ma dem fenn du ma gis ko fi ñëw waaye maa ngi yéeg ak a wàcc si njaboot gi rek a tax ma yéeg ak a wàcc sa damay fay bor doom ndax bu sam bu may xale lu ma mosaan ne oh, samay parents dañuy jóg nekk kon nag damay fay bor doom nga la waay lii nañu ci dimbale nañu ci dimbale bu baax a baax gis na nag seen taxawaay yéen waa gouvernement gis nañ seen taxawaay muy yéen ñi xam ne yéen ay journal la journaliste yi ak euh, gendarme yeeg police yeeg ñun ñëpp gis nañ seen taxawaay waaye nañ ñu gën a jàppale bu baax a baax ba baat boobu daal moom na fay du mujj na ci daal na fay moom waaw. mu mel ni yow da nga ci doom. man am naa ci doom am ci jarbaat am naa ci doom am ci jarbaat sama kii douze ans la am kii quatorze ans la am loolu metti na lool nag metti na ci ku man doon waaw. naka nga yëgee li nga xam ne moo leen dal. ni ma ko yëgee daal moo di man fi mu ne buñ toogee nii sax daanaka du ma mën a tee bokk ak ñoom sax di lekk di jàkkaarloo ak ñoom duma ko man daanaka biñ may woo ma leen suur naa sa lépp rek dama leen di ñewant ndax ëllëg ndax mën nañoo dem a dem a dem ba gisatuñ ma kenn ay jigéen jigéen bu amee doom ju góor mën naa dem ba ku muy xulool sax ñu naan ko sa sa sa yaayoon nangam nangam sa yaay nangam nangam kooka sax mën naa jug xaru ji mën naa jug xaru ji ba mu tàndar boppam ndaw seen yaay it mën naa jug tàndar boppam muy mbir moo xaye ni daal yéeme na maanaam daal ku ko xool ba seetantal ko daal lu mat a jug taxaw la bu mu amati musu fee am nag mi ngi fi doog am fii ci Touba lii moom musu fee am ñaar fukki nit ak nangam mus mus ta am mi ngi doog am fii waaw nañu ci jàpp lu baax daal. Euh, ndax yéen euh, daan ngeen seetlu jëf yu mel nii ci sëriñ bi comme daan fréquenté xale yu jigéen yeek yu demee noonu. ah maanaam sëriñ bi nag man man man cër bi moo ko joxoon daal kilifa laa ko sëriñ sëriñ laa ko joxoon. ndax amaloon nañ ko fi benn daayira di ko màggal mu koy màggale ca Fass Fall gële ca booru baa mbay dañ ko daan tegal ku am ñaari doom junni ngay joxe teg ku am benn doom joxe juróomi téeméer paasal sa doom ñeenti téeméer ale la tur ñu dem ca màggal ga ku mën a dem dugg ci oto bi dem ca màggal ga moo ñuy jiite sax it waaw dinu jiite julli moom daal ku am am tudd si moom ngay woo a ah, dem nañ ba lii nag moom jot na ko jot na ko waaw jombut kenn nag waaye nag dafa ñaaw lay day day day lu ñaaw daal. daw gi daal moom nu si jaaxal daal nga eh, ay bokkam di di dal naan du mujj fenn lii yàgg nañ koo def su mujjut fenn daal lool moo ma njëkk a jaaxal moom. man daal moo ma njëkk a jaaxal moom. lii daal buñ ko bàyyee nii mu naax saay mu naax saay daal defe naa dana demee neneen man ci sama côté moom. sànq ba ngay wax nee nga am na ñu fi ñëw waxtaan ci ak yéen. waaw yan kàddu lañ lañ lañ waxtaan ak yéen. ñi ñi fi ñëwoon di ñaan si intervention. waaw ay magam lañu. maga ñi ba ñëwee dañoo waxtaan ak ñun man lañ njëkk njëkk a woo ñett yoon lañ fi ñëw man lañ njëkk a woo man doo nga di fa góor ak euh, benn jigéen ñu ne dañoo bëgg ku ñu jéggal euh, pelante lu ngeen ci def nu retiré ko ma ne ko mbir mi dañoo bari mel na man it mënut a jéggal mbooloo xanaa da ngay woote waat ca benn su woote waat yàlla dogal fekkuñu mu fa ah bi ñu ñëwee a ah euh, ki nga xaye ni mu fi la moom la fi fekk it ah yala dogal na bi ñu waxee ba ñàkk a it moom ca la moom moo wax fekkewu ma nag ca mu wax mu ne paaka jot na faa génn waaw paaka jot na faa génn xam nga koy jéggalu ji di génne paaka nag kooku moom njéggalam moom dese naa leer jéggalam dese leer waaw ñu bañ leen a jéggal ñu del si waat fa di ñaanu di ñaanu njéggal fi la fekkoon délégué quartier bi fa la ko fekk keroog ah, man bi ñuy wax di wax di wax ba tudd affaire jàkka laa ne leen man affaire jàkk man euh, yëkkatiwu ma jàkk moom néegub yàlla la ku bëgg na dem julli ku julliwut nga xam da ngaa julli jàkka moom néegub yàlla la yoonam néewu ci ki def mooy moom la moom la ñuy waxal moom la ñuy waxal ñun ki tooñ rek moom la ñuy waxal ah, mbiri daara it dëkk bi bu fekkoon ne téeméeri daaraa fi nekk juróom-ñeent fukki daara yi ak juróom-ñeent tooñu ñunu daara ji nu tooñ moom dong la ñuy waxal ndax nit ki moom la ñuy liggéeyee dong nga ko mën a adressé lu muy liggéeyee nga ne nangam lay liggéeyee moom day jàngale moo moo indi tuuru sëñ daara bi waaye nun tudd nu ne daara yee bon ndax man mii sama maam day jàngale samay rakk dañuy jàngale loolu daal moo na ci naqari daal moom daal loolu ma ci naqari du ma ci wax genn kàddu goo xaye na nag euh, kàddu gu ñagas lay doon waaye ndimbal daal la ni ñaan ku nu jàppale ci xale yii nu mën leen a faj ndax bari na ci ñoo xam ne yoruñu lu ñu faje sin doom yi ñu ko kët waaw ginnaaw biñ la ma saboo li nga xamante ni moo dal euh, xale yi nekk fii mu di 27 xale yi nga xamante ni sëriñ Xaadim daanaka da leen a woon Eh, yow lan nga ci. man am naa ci doom am naa ci jarbaat. naka nga yëgee mbir mi. mbir mi man moom bi ma koy yëg nekkuma foon damaa nduggi woon marché bu ma dikkee fekk koñ bi fees dell sama doom fekk ma ci waañ bi na ma sëñ xaar mi tëdde tëddee ñun ñëpp. bi ma waxee loolu man ay ree la ma def damaa toog bi ree man ko yéen sëñ xaar soxlawu leen ma ne ko sëñ xaadim soxlawu leen ba leen di tëddee mu ne ma laajal ma génn ci sump gi fi xale yi nekk. ku ma la xam mu ne ma sëñ xaam daa tëdd xale yi sëñ xaam daa tëdd xale yi sama doom bi ma ko wooyee bi ma séenee rek daa commencé pit pit ma ne ko wax sëñ xaam lu la ma sa def mu ne ma yaay musuma def dara la ma wax ma ne ko ma ne ma waax mm, waañ bi jël sama paaka ñëw ne ko say morom lim la def ndax yow daawu fi yendu daawu fi fanaan soo xam mu ne daf ma pine soo ko sëñ xaam mu ne ay da li mokkal dafa bëriwut moo tax ma koy pine mais ñun pine rek lañ jàpp am na benn bis mu rakam ju ndaw ji mu àndal dem jànge ba ñëw dikk na yaay ñu ko am mu ne ay la de silibam bi dafa taq deret léegi ñu dikkee ko ne ko yow lan moo tax sir mag yi ngay woddoo moo la war a tax nga teel a gis lu man moom loolu lañ ko jàpp ñun suñoo xam ne moom dañ koy def dara toog na ko ñaari fan feebar ko sama biir day metti jàngiwul pour ñun nag day bëgg a gis bagaasu jigéen rek ñun loolu lañ ko jàpp mu ne sama biir day metti ñu changé ko yére mu sangu solaat yeneen yére toog ñaari fan jàngul ba ko ñetteel mu doog a dem jàngi moom mi ngi tolloon si ñaataat. waaw. mi tolloon si kooku am na 11 ans. 11 ans waaw sama jarbaat bi am quinze ans. bi loolu amee ngeen yóbbu ko hôpital. waaw ñu yóbbu ko hôpital Touba sa kanam bi moom mu ne sañul wax na nanga ma ngi ci xale bindal ñu kayit ñu jàll seexul xaddim moom moo ñu jox résultat bu leer. hôpital bi ñoom nee na sañu ñoo wax li nekk ci xale yi daf ñu da ko seetee bare dañoo bindal këyit nag jëm leen seexul xaddim ñoom ñoo joxe résultat bu leer hôpital bu ndaw la léegi ñu dem Seexul Xaddim mu firndeel ne laal nañ ko bindal ñu kayit ne dem leen police ñu dem police déposé ko mu joxaat ñu dem leen ki ko yoroon mu siñewaat ko ñu demaat yóbbuwaat ko ci kooku mu siñewaat ko ñu dem déposé ji ko police ba léegi kayit ya mu ngi foofu moom. Mhm. léegi bi xewee euh, naka ngeen doxalee ak kii di Serigne Khadim. ah sëñ Khadim moom gisatuñ ko ñun moom jour boobu noonu ñu déggee lool ci guddi jour boobu la dem yoonam takk lu mu fi amoon dem ba nii gisaatuñ ko fenn moom. déggaatuñ ko fenn tamit. Hmm. sonn rek sonn trop ndax xale moom daanaka boo xasee ba yàq tam te xale yi léegi mooy loolu xamuñu dara man ne leen indi ci perte defaat leen du du loolu sonn nañ trop chaque jour ñi ngi karkaral di waxtaan ak ñoom te xale yi xamuñu dara te jamono ji rëb na trop nag wax dëgg yàlla am rëb na waaw waaye nag ñu ngi def suñu kim lay kàttan pour xale yi mën a am kii daal weer waaw ñu ngi def leen man daal moom. parce hmm. que tamit yéen ngi waaw ñu ngi jege xale yi ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi leen di faj tamit nag waaw ndax garab yi ñu leen bindaloon jënd nañ ko ñu ngi leen di faj su jeexee ñu dellu si leen waxoon su jeexee dinañ delluwaat waaw. si wàllu yoon fan ngeen ci toll. si wàllu yoon moom déposé nañ di ñu war lépp fi ñu war a dem fépp dem nañ fi ne ñu ngi toog di xaar waaw toog di xaar daal ci lan toll moom. ndax sañ bi fañ ko tegoon moom ak fi mu ñu mu wan moom moom wuute na wuute na lool waaw lu waaye di def ci moom ngay dem def loo ko bari na fi xale xam ne doyloo woon nañ ko lool it nag waaw. yan période nga nga remarqué ni sa doom am na loo xamante ni mu ngi koy mu ngi koy dal en tant que jigéen ak jigéen. sama doom yi de saa ñëwee na boppam day métti dafa feebar bu ma ko waxee na ko nan dem ma hôpital du nungoo dem nday lànk ma ne ko nañ dem mu ne ma du ma dem ci moom laay dem mu ñaanal ma am na bis boo xam ne sax ma ànd ak moom mu dem fa moom mu jox ko ay garab ndax loolu man boobu xam ma ci wan dara. na ma ci xamal leen kon du agsi fii kon metti na ma lool. ci jàngale bi nga xam ne daan leen ko jàngal ci wàllu yar bi nga xam ne ak nekkin bi nga xam ne daan na ko nekkee ak xale yi. xale yi ne daan na leen fa téye moom ba timis timis daa na leen ko fa téye bañ mujj sax am na ci ñoo xam ne seen njort ñaawan na ci affaire bi lool waaye ñun xamuñu ci wan dara dara lañ ci xamutoon. Euh, en tant que yaay euh, bi nga ginnaaw ba mbiri xewee naka nga waxtaanee ek sa doom ba ba mu wax la li ko li ko li ko sëñ Xaadim daan def. man sama doom sax affaire bi bi mu xëyee fekku ma fi ak màggal la ma fekkoon dem. Mhm. bi ma agsee ñu wax ma ko keroog feebar la ma mujjut tàkk bi ma tëdd mënu ma faa jóg. ma ko déggee ndax foogeewu ma ko woon lu bon loolu ci xale yi. ndax waxtaan nga seeg sa doom. waxtaan naa seeg moom koy. amul lenn lum la xamal ci sëriñ. waxuma ci dara ndax nangu ko mën a wax. gone yi sax ñoo ko xabal ba bañ yóbbu ko hôpital ndax nangu ko woon a wax ndax la ne leen gone gu ko ci wax dinaa la rey moo taxoon gone yi ñemewuñ koo wax. sànq ba tey ci say wax yaa ngi naan euh, mu mel ni da ngeen cee wéet euh, liñ leen di wax mooy du mujj feen du mujj fenn baat boobu lan moo ko waral. ah moo nu jaaxal de man du mujj fenn jooju daal moo nu jaaxal moo ñu naqari ndax loolu la ay magam wax ak di génne ay ngànnaay naan du mujj fenn loolu moo ñu ci naqari. ngeen di ci wàllu yoon fu mu toll nii ah ñun koy xanaa kuñ dimbale rek ndax yoon moom dem nañ ci sonn nañ ca koor ga ba fi mu ne ñoo ngi dox te dara sotteegu ci nag moom waaw ca koor ga ba tey day noo ngi dox lu ne lépp passé nañ ko di dugg ko wàcc te dara génnagut lu leer jàpp gi daal moom buñ ko aman mu ñu gënal moom mbaa xam ju mujj fenn ji moo nu gën a waaw. ba tey amagu leen ci moom benn information fu nekk. dara lu leer demagun ko si. ci wàllu yoon yéen a ngi dem ak a ñëw. ñoo ngi dem ak a ñëw yoon daal ñoo ngi ciy dem ak a ñëw waaye amagun ci dara lu leer moom saa ba nu waxee ñu ne toog leen déglu ba ba tey ca koor ga ba léegi yàgg na. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen àndoon nañ ñun ñu suivre li ñuy wax rek people 221 chaque jour boo xoolee waxtu bi ñu agsi fii guddi na mais à chaque fois euh, sunu liggéey yamale wuñ ko ndakaaru dañuy wër xool ñi nga xamante ni euh, dañu am ay jafe-jafe nit kenn du ko xeebal soxlaam. ci loolu nag lañ daw ay kilomètres yu bari ñëw fii nga xamante ni mooy Touba taataan ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy responsable yi ñoom la dal seen kaw. kii nag mooy délégué de quartier bi sëñ bi. kontaan nañ dañuy bàyyi nga tàggatoo ak lay seetaan. waaw baax na maa ngi tàggatoo euh, maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér maa ngi leen di ñaanal ndax lii rek mooy réew lii mooy mooy yokkute ndax réew mënoo dab ku rek nga jox ko xaalis waaye ku ne ci jafe-jafe nga fekk ko wax ak moom lii rek moo dim réew ndax boo waxee ñëpp dañ dégg. te ku ñëpp tuf li nga tooy kon nag lii rek mooy li nga xam maa ngi leen leen gërëm leen ñaanal fii ngeen nekk baba ngeen di ak ndakaaru yàlla na yàlla defal jàmm bi jaay rasulillah yàlla na seen liggéey barkeel lii nga xam ne a taxaw ngeen ko askan wi parce que yàlla du fi yebal seen naa Jibril mu ñëw léegi nii ndax boo seen luy ñuul dong ñëw da ngay daw kon nit ñi la suñu borom di yebal ci biir nit ñi ñuy lijjanti nit ñi di waxtaan ak nit ñi ba xam lu ne ci nit ñi xam lu koy saafara nit ñi xam ne nii doomu aadama parce que suñu borom dana wala xadd karam naa bani aadama li ma bind doomu aadama moo ci gënal doomu aadama moo ci gënal kon nag bu fekkee doomu aadama moo moo gënal ci li yàlla bind ngeen joge ndakaaru ba fi ngir doomu adama yi mission bi nga xam ne sans wala pôle bu la ko tegee nga def ko moom amel na la inter amel na la lu mu la war a fay euh, mag mu toll na suñu boroom bu ne li ma bind doomu aadama moo ci gënal ngeen jóge ndakaaru ba fii ngir doomu aadama yi contrat boobu suñu boroom wàcc ci rasulillah yéen a ngi koy rempli kon yàlla na leen yàlla fay. jërë ngeen jëf mbokk yi di jox yeneen dig daje ci yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.